waaw contentement bu ma amee am rek tey xol ñëpp sedd nañu. retour en scène ah bu Coumba Gawlo fierté Sénégal yëpp la fierté adduna bi yëpp. jàmm rek lay am macha allah xëy na abse de temps bi nii la waroon demee mu demee noonu rek mais elle restera toujours Coumba incha allah. mais tey yaay ban mbégte ngay am ci sa doom organisé lu mel nii. waaw Coumba toogoon lu mat 300 kenn gisu ko tey ji mu di kaa fas yéene def retour nga ñëw tey ji gis mbooloo mi nga xamante ni taxaw nañ fi ndax Coumba Gawlo mi sa doom ana tey ji ban mbégte nga am ci bis mu mel nii. mbégte mu rëy parce que Coumba Gawlo mooy Sénégal. Sénégalais yëpp ko bëgg admiré ñëpp ñoo amoon tuuti lu nga xam ne mi ngi seen i xol kon tey buñ koy foog xool retour en scène ñun ñëpp dañuy war a kontaan waaw. mais tey ji fi musique Sénégal toll nga xam ne gone yu bëri ñu ngi jóg di roy ci mel ni Kumba Gawlo. waaw coow li bëri ci ni ñuy waye ni ñuy solo. tey ji ñu gis Kumba Gawlo ko mel ni moom way bay bëgg a jàll de mës a def ne gone yi def tey ji boo amoon message booy jàll gone yi tey ban message nga leen di jàllale. waaw ñu góorgóorlu rek beaucoup de valeur way yombul non non wal boo ma boo bëggee mën way da ci yàgg pour nga yàgg ci. da ngay mën baar da man mën mën rek la man rek foog nga mën rek mën rek amul leneen. gëm nga kumba na mu meloon bu njëkk ba maanaam way nga mu mënoon ci doon ko ci gawlo gi dina ko wane tey. loolu c'est loolu c'est dans notre sang. waa ba tey mi ngi fi. la veille toujours là toujours là toujours là waaw ah, incha allah li ci kanam rawul bët incha allah yal nañu yàlla fal allah. yàlla defal ko li mu gën a bëgg ci kattanam parce que ñun ñëpp suñu voix la ñuy dundee kon yàgg na ci daal yi yàgg na ci daal yi elle a tout fait am dara lu muy lu muy lu muy prouvé à la hauteur. elle est toujours du lekk fii dafa social lu bari dafa pesé ci kawam